donc bonsoir. Nous sommes bien à euh, à Ziguinchor, ici comme vous voyez derrière moi, avec la radio Génération FM Sergent Nous vous saluons de cette très belle euh, assistance ici, avec le euh, micro de la radio Génération FM. Comme vous voyez derrière moi, c'est la, les sporteurs et les sportrices de Ziguinchor qui sortent dans les rues pour célébrer la victoire de l'équipe nationale du Sénégal. Vous entendez les cris de joie, vous entendez, vous la Donc les Sénégalais qui sortent derrière c'est tellement euh, donc le public est ici euh, tellement fort qu'on ne peut pas donc euh, dire les mots comme nous voulons comme vous voyez derrière nous ici donc nous sommes juste devant le rond-point 2 pour donner la parole aux certains supporters comme vous voyez derrière moi donc voilà comme je suis envahi donc tout le monde va sortir derrière madame match bi dañ ci kontaan ni waa Sénégal mu ne ci xol dafa sedd nous disons que c'est le même bu nga l'équipe nationale muy du côté de Cameroun mais ici à Ziguinchor la joie est immense la joie est la célébration des sports et sportrices de l'équipe nationale du Sénégal qui ont battu les étalons du Burkina Faso sur la marque de 3 buts à 1 avec euh, toujours le jeune Sadio Mané qui a marqué et délivré un pas décisif alors on va essayer Aliou Cissé Aliou Cissé moo mat mat kii football coupe d'Afrique football ndam rek ndam rek Aliou Cissé la ñu wax Aliou Cissé alors comme ni ngeen ko gisee mais alors noo gisee mat Sénégal bi dañ ci ko damaa kontaan ainsi mënu ma sax wax ndam la rek incha allah coupe bi rek day ñëw. nee na coupe bi rek ñu bari sax loolu la ñuy wax alors Xavier comme ni nga ko déggee sëriñ bi ñu xam ñoo di waa euh, rajo Génération FM ñoo génn ci yoon bi nag ñëw euh, xool nag naka la waa support Ziguinchor waa ak ñi xam te ki nga xam te ne moo di nag euh, coupe ki nga xam te ne coupe d'Afrique des Nations nga xam te ne Sénégal moo dóor équipe bi nga xam moo di 3 ko dugal ñi nga xam ne euh, Sadio Mané euh, amuñu dañu kontaan dañu nañu yàlla may ndam yàlla nañu yàlla may ndam dimanche inshallah coupe bi ñëw Ziguinchor ñu dem soobee yàlla ndam bi dañ ko am fi affaire bi lañu wax bañ dang kay bugg comme ni ngeen ko déggee nag ñoom nag ay supportrices euh, supporters supportrices Sadio Mané la nañu ak yam dal moo di nag Aliou Cissé Jean-Paul II. Donc vous voyez, vous voyez juste derrière moi donc ici l'équipe nationale du Sénégal qui vient donc euh, juste euh, de battre la formation du Burkina Faso, les étalons de Burkina Faso. On avait tant parlé, euh, la presse sénégalaise avait tant parlé de cette équipe du Sénégal qui avait mal débuté la compétition, mais au final il est monté en puissance petit à petit dans cette compétition qui est la Coupe d'Afrique des Nations. On espère bien que la Coupe d'Afrique des Nations édition 2021 au Cameroun sera la bonne pour la formation du Sénégal, puisque l'équipe du Fort Alou a été tant critiquée avant début de cette Coupe d'Afrique des Nations. Mais au fur et à mesure, on a vu qu'une équipe du Sénégal qui est sortie des matchs de poule avec seulement qu'un seul but marqué, un but marqué sur penalty et qui a fait que l'équipe nationale, euh, nationale, du Sénégal a été souvent critiquée. Mais au final, les hommes Cissé, à partir des huitièmes de finale où ils ont sorti un grand, très grand match face à la formation euh, du Guinée équatoriale, ils les ont battus sur le score de 3 buts à 1. Ils sont qualifiés un quart de finale. Ils ont euh, réédité l'espoir pour battre... Euh, Aujourd'hui, en demi-finale, ils ont euh, battu, battu, cette formation euh, des Catalans du Burkina Faso sur le score de 1 but à 1. sport triste. alors, Maïna Satour, accessante. Magnitude. Magnitude Assumption Content Alors Ah, uh, ah xana content rek di gërëm waat Aliou Cissé rek. moo tax lii yëpp waaw classement bi baax Mané lenn kese moo ko dese mooy coupe bi noo mën a wax ci loolu. ah ñoo ngi ñaan yàlla rek yàlla ñu yokk ci doole bi rek Sénégal ah, jël coupe bi na dañu sonn ñaata at jëluñu coupe bi loolu rek la ñu ñaan Sénégal jël coupe bi ñu yokk doole rek waaw fàttewoom rek ñu jël ko waaw Sénégal jëm kanam. waaw sëñ bi nag ñu gis ne sol maillot Sénégal te Sénégal gagné na équipe boo xam ne moo di Burkina Faso loo mën a wax ci match bi. dëgg la salaamaaleykum euh, ñu leen nuyu yéen di sant euh, Lions yi di sant ñëpp di féliciter joueurs yi ak euh, supporter rek ñëpp franchement nekk na loo xamante ne neex na te bon coupe bi lañ gën a soxla nag franchement coupe bi lañ gën a soxla final nañu deux fois ren tamit yàlla yóbbu nañu yàlla doon suñu njiglaay aussi yal nañ ko jël surtout coupe bi surtout coupe bi yal na yàlla may ñu jël ko si xol bu sedd guy ñun ñëpp nañu maa ngi doon benn c'est le Sénégal qui gagne ok jërëjëf merci. merci beaucoup euh, sëñ bi ñu ngi koy nuyu bu baax a baax comme ni nga ko waxee noonu loolu kese la donc nañu manko comme président son excellence monsieur Macky Sall ni mu kontaan rek kontaan bu bëree bëri instant moom sama xol moo fees damaa kontaan. Euh, franchement parler Sénégal tey moom def nañu match wane nañ seen bopp waaw wane nañ ni ay lion lañ. ñun moom instant bi amuñu dara ñu wax ñun moom coupe bi rek lañ séntu final moom waxatuñ ko ñun coupe la ñu wax waaw. waaw lii mooy deuxième waaw première bi moom certes échoué nañu mais deuxième bi ñëw na euh, amuñu droit à l'erreur voilà dem nañu première fois ñuy échoué ñi comprendre nañu nu mu fa demee mais deuxième bi moom amuñu droit erreur foog ñu gagné ko te dañ koy gagné incha allah waaw. avant d'y arriver là-bas. Ici, on voit que euh, les sportifs et les sportrices sénégalais sont massivement sortis. vous voyez derrière moi

ci la Aliou Cissé léegi ñu ne dañu nekk Sénégal léegi joué na final 2019 euh, est-ce que ren kay la di ngeen di ngeen confiant pour ñu jël coupe bi inshallah man ba commission bi départ la xam ne Sénégal obligatoire day jël coupe par la force kenn mënu dara inshallah dañuy jël ndam li indi ko Sénégal Sénégal Xavier mel ñu ngi koy jaar bu baax ba alors soxna si tey Sénégal joué na tey joué na euh, match boo xam ne ñu yëpp ñoom lañ ko daxaar joué final bi loo mën a wax ci match bi ah match moom neex na macha allah nañ leen ñaan moom ñu gañ final bi rek bu gañee ñu def lu ëpp lii loolu nag loolu la ñu bëgg alors yow gis nañ ne da ngeen sol maillot Sénégal loolu mën a wax bi match bi ah xanaa kontaan rek Sénégal nu mu gañee nii demi final bi kontaan nañu saajo Mané kenn du kenn du natable Sadio Mané mën-mënam ci football Afrique bi ñu amul fu ñu koy tollaleel tey tey mën nañ ne que leader la boo xamante ni que tey Afrique àddina ñëpp ñoo ñuy seetaan àddina ñëpp ñoo xam capacité wu Sadio Mané kon bu defee lii bettuñu parce que yàgg na di ñu ko defal encore une fois mi ngi koy répété maintes fois li ñuy ñaan rek mooy que kilifa diine yi autorités yi na ñëpp jóg ñu jàppale réew mi ñu jàppale équipe nationale surtout Aliou Cissé Aliou Cissé nañ ko ñaanal dama koy wax encore une fois nañu ñaanal Aliou Cissé Aliou Cissé def loo xam ci football tey Sénégal ba àddina di tukki du denc ci histoire du denc ci histoire léegi lenn moo def final bi nañu concentré wu ñu gën a góorgóorlu euh, ñu xam ne que yi des na objectif bi moo doon jël coupe voilà léegi bu ñu jëlee coupe nag li des bu ñu ñëwee Sénégal dinañ ko motali ñuy wax rek gars yi ñoom ñu jàpp ci voilà ñu ñu def ba mu baax quoi. waaw wala waaw mbaari mbaari ngol mbaal jayi la mbaal kontaan na lafa nak duwa leke mole duwa almañu kupo na sénégal waaw sadio mané nak bambali al duwa kafu moɗo le duwa ni jumoto duwa leke kende ke ñin di nu jato long il faut mole ñom makoy mole duwa kupo ay na sénégal ani aliou cissé fana il faut ka makoy na makoy duwa la aliou cissé jato long jambaro long waaw jato long jambaro long il faut ka makoy kupo ay na sénégal ni yalla sonta waaw ma ngi leen di gërëm grand merci kontaan merci man de kontaan na ndax man Mané la sante Sadio Mané sama gor la sama mag la wa dëgg fa yalla sama xol sédé na torop moo tax ma sol kilote bi goudi bi. voilà, nous sommes au rond-point euh, pour le 2 où l'équipe nationale euh, du Sénégal vient donc euh, de battre la formation des Tatalons par la marque 3 buts à l'enseigne. Le Sénégal gagne na tay nak ñi ñi nak nga gën ciblé ak gën ak euh, drapeau Sénégal ñeu ciblé ñu rond-point kontaan na parce que Sénégal suñu pays la quoi te dañu gis match bi c'est vraiment rafet na quoi Sénégal ni ñu ñëwee tey kontaan nañu kontaan nañu dañu bëgg final bi ñu yokk ñu yokk seen effort bi quoi pour ñu jël coupe bi quoi ñu yóbbu ko Sénégal quoi man loolu laa gis quoi Aliou Cissé c'est une quête euh, suñu quête bu baax la quoi def na effort def na effort def na lépp ah nu mu nekk di def noonu bu continuer noonu la ah ah Gassama. Gassama, Gassama. Deuxième but, Gassama. Deuxième but, Dien, là, Dien. Dien, Dien, Dien. Sadomano. Même Khalé, ça ramène Nakalal Mohé au final. Voilà donc c'est la célébration de cette victoire de l'équipe nationale du. formation des talents de euh, Burkina Faso par la marque 3 à Biza. On, va essayer de faire le tour parce que sort, c'est un peu partout. C'est pas seulement au rond-point, exemple de 1 où que vous soyez. Vous voyez euh, donc, nos amis qui sont venus aujourd'hui donc voir la, célébration, la célébration des fans et des fans de l'équipe. alors sëñ bi Sénégal gagné na tey nga génn nag. non maa ngi Sénégal yëpp ku nekk tur ak sa bu tey bi ñu soo très content tout le Sénégal ne ñaan yàlla incha allah dimanche ñaan Sénégal andi ko Sénégal ñëpp a kontaan ñoo sant yàlla nañ ko fekk jàmm salaam ñu ñëpp ñu ne si jàmm merci beaucoup loolu ñu bëgg nag ñaan ñu andi coupe bi nag Cameroun moo la doorante ah, non bilaay moom la ñuy wax Cameroun la ñuy soxla bilaay Cameroun dañ koy tas cette fois ci sono dañu doo bëri wax final dañuy gañ koy soobee yàlla lañ ko jël cette fois sono la bonne bilaay oui muy match Sénégal euh, Burkina Faso moom la ñu ñëw fêter victoire on est vraiment très content ñuy ñaan Sénégal jël ndam bi dem final indil ñu coupe bi. lan mooy sa joueur préféré ci l'équipe nationale Sénégal. Euh, waaw Sadio Mané neex na ma waaw. Sadio Mané daal jël naa ko. waaw gën nañ ko dégg ci euh, Coupe d'Afrique vraiment mu def euh, compétence bi mu am tey jii nii kon euh, li mu def sawar nañ ci moo tax ñu génn di ko manifester di ñaan mu indil ñu ndam bi Sénégal. moo gagné. waaw dëgg la euh, Sénégal Casamance ñëpp génn nañu ñëpp génn nañu kontaan nañu fete nañu ñuy ñaan daal ndam li dellu si waat fii ci Sénégal. waaw allez merci beaucoup. ay yaay ñoo xam ne les enfants les mères ñoo xam ne ñoo fi nekk. ñoom yëpp dañuy génn rek alors sëñ bi i koy ɓe diyamna mandika kaon la donc voilà ah, euh, radio général fam fo i bolde donc équipe nationale du sénégal mbi fele marso gayeta 3 1 ini ngi équipe ka fo mi burkina faso euh, ita samira fono ñi marso ye analyse ya ñaadi le donc sénégal a bien joué ou pas sénégal a bien sénégal e joué ta kune quoi waaw sadio mané bi a effort kele quoi adala lom de marso di kon a aya kata rek mba noma

abarka ah, bake ɗo goɓantakundan kolle ɗo ñamtani nak ah, ñone kene du côté ah, de bambali ñoom ay sporteur sadio mané la lu ni mooy que équipe nationale fu mu nekk noonu kay ils sont tellement confiants donc dañuy kontaan alors ñu jël bi alors gis ne nga sol maillot Kelsey xanaa supporter Edouard Mendy nga waaw man supporter Edouard Mendy la quoi mais match bi on sait que match bi du ko am nañ confiance quoi loolu tax sol maillot Kelsey bi c'est Edouard nii nii mais match bi xam nga lan ngeen bëgg ñu daj ak Cameroun ñu jël suñu revanche. lan moo waral ngeen bëgg a daj ak Cameroun. non Cameroun daf ñu gagné 2000 lan ñu métti ba léegi xam nga loolu daa métti ku dañu bëgg a jël seen revanche merci beaucoup. alors kaay bi euh, ki nga xam ne moo Jakarta alors sëñ bi. Ah, yaay tas ma euh, lay blasaar ah, boy heure bi man dama kontaan yow nga. kon ñun ñëpp kontaan quoi Sénégal ñëw na ba yegg si fii nii nga man dama gëm gars yi quoi dama leen wóolu kon xam nga léegi heure bi foog ñu jël coupe bi bi moo des comprendre nga dem final nee na trop mais coupe bi te coupe bi dañ koy allah booy depuis début. kan bi xoolal maay supporter Sénégal ba léegi bayuma kon gars yi waruñu bay waruñu bay seen loxo a sa mbokku sénégalais mu gagné xam nga na xool yëpp doon benn bu doonee benn coupe bi day ñëw par force maa la wax loolu noonu man la. Eh, diggante Cameroun ak eh, eh, ku ñëw dama koy dóor. foofu xoolal ku mu neex mun na gagné mais wuy ma ku ñëw laa la wax de man Sénégal man dama koy dóor damay jël coupe ma dem coupe du ma jëlaat coupe du monde man maa wax loolu noonu maa la wax loolu noonu tey eh loolu su amulee wuy ma xoolal bu ma woowee Adji Sarr bu ma woowee dara xoolal bu ñu dajee wuy ma woowee ma maître El Hadj Diouf man maa la wax loolu noonu. am nañu tara baay Sénégal dafa toj fii ñëpp kontaan mbégte gaalaama nañu continuer nii waaye kay foofu toj loolu laa am Sénégal a fini de battre les, la formation euh, des Talents de Burkina sur la marque de 3 à 1. Certes, ça a été un match euh, difficile au début, mais la formation euh, de Burkina, donc, donc, donc alors Jacques, ah. parce que vous mën jouez. day góorgóorlu avec Ismaël Sarr. Sénégal qualifié Quelle final le final

ah nañu góorgóorlu kon Sénégal rek ñu ñaan yàlla mel leen ndam ñoom tamit rek mooy loolu daal. mais daal Sénégal incha allah moom ñu koy ñaan yàlla mel leen ndam sunu ma Sadio Mané car macha allah sonn na moom bravo Ismaïla Sarr yooyu noonu ñëpp ñu leen di félicité mais nañu góorgóorlu gën a yokku daal ren moom incha allah moom bëgg nañu jël coupe soobee yàlla yàlla su moom incha

barke Sénégal bu mu premier euh, Sénégal sur une remise euh, magistrale de la part du défenseur central il s'agit bien de Kalilou Koulibaly donc qui a remis la balle au profit euh, du défenseur du Paris Saint-Germain qui a mis donc la balle au fond des filets, qui était le premier but de l'équipe nationale du Sénégal. Juste après, l'équipe a marqué donc le but du break qui a été marqué par l'international donc c'est Amadou Bamba son deuxième but dans cette compétition et puis par la suite Sadio Mané, le faux euh, de l'équipe nationale, l'enfant de Bambali, donc, a permis à cette équipe nationale de, battre la formation de Burkina Faso sur la marque de 3 à 1. Il faudra rappeler que les Burkinabés ont réduit le score par l'intermédiaire de El Bilal qui a réduit le, score. Donc voilà, la formation de l'équipe nationale du Sénégal a battu ceux euh, du Burkina Faso sur la marque de 3 à 1. Aujourd'hui, on en parle, nous l'avons parler aujourd'hui sur le site de la radio Génération FM. On, on, se doutait de cette équipe du Sénégal. Alors, c'était Sénégal qualifié na ils sont bien en finale. asalaamaaleykum ah, waa Sénégal salaamaaleykum askanu Sénégal ñu kontaan si yéen bu baax a baax. mais maxi bi moom neex na amul nu mu neexewul dëgg-dëgg c'est que nañ nag euh, premier bi mais deuxième mi-temps mu ñëwee wax dëgg yàlla euh, Ismaïla saar bu dafa dugg rek euh, rapide am quoi mu sensé maxi bi dafa dugg rek mu sensé maxi bi non cos Aliou Cissé la c'est que li ma gën a neex ci moom mooy Ismaïla saar ba mu gaañoo ñu ci bëri dañ doon wax ne Aliou Cissé lan moo tax muy xëccoo gars yi Aliou Cissé mooy si booy bi rek ndax xam na booy bi mais dëgg-dëgg xam ne lu taxoon mu mooy si booy bi nag euh, tey booy bi firndeel na ko quoi ndax Maxi Bale nii la demee dafa def changement gars yi gañ a Maxi Maxi bi itam mu def changement gars yi gañ a Maxi mais kenn du Sadio maane saajo maane ponkal la la jotoo ñancoo kii moo fi nekk li muy football ci monde bi xajul fii. non dëgg-dëgg dañ koy ñaanal waxuñ sax coupe d'Afrique coupe d'Afrique bi dina ci incha allah coupe du monde bi dañu koy jël incha allah. Sénégal def na lépp qualifié na finale pour la deuxième fois euh, pour la deuxième fois d'affilée après 2019 ñu door leen finale euh, par euh, leen door mooy Algérie ñoom toog na alors fu nga nekk noonu nag ban kaddu nga mën a lancé ñi xam ne ñooy supporter sénégalais ndax fu ñuy li ñuy soxla mooy di coupe bi la ñu soxla. supporteru Sénégal li may ñaan ci ñoom mooy ña ànd ak dal. nañu teey te ñu ànd ak dal boole ko di ñaan incha allah coupe bi day ñëw fii incha allah nañu ñaan yàlla rek yàlla may ñu ndam su boobaa ñi dem si match barrage coupe du monde bi. ñuy mën a jàll xëccoo ji coupe du monde bi luñ mënta jël ci àdduna amul. gis nga suñu équipe bi premier bi mais dañ leen doon dañ leen doon dañ leen doon xas mais man dama jàpp ne Sénégal dañoo amul ku ñu football boo xoolee mag ci yëpp dañoo am Covid. senegal amul kenn ku leen xam ne ñeme na leen quoi amul ku ñu footballal c'est bu ñëw football gars yi duñ nangoo génn pour ñëw football amul équipe Afrique fii équipe bu génn pour football ak ñun dañ lay dóor man loolu gëm naa ko équipe bu génn rek pour football ñun dañ lay dóor. ci kattanu suñu borom te dañuy jël coupe bi inshallah nañu ñaan suñu borom rek ok merci. merci beaucoup. alors on va essayer de prendre notre euh, confrère donc euh, voilà actuellement alors ma nuyu bu baax a yaay rafet machallah merci beaucoup. alors soxna si sa tour ak euh, Fatou Diagne nekk euh, journaliste à Casamance Actu. Alors, l'équipe nationale du Sénégal avait timidement débuté la Coupe d'Afrique des Nations. En tant que journaliste, le football. commencé <laughs> timidement cette Coupe d'Afrique, mais par la suite, ils sont montés en puissance. Quel enseignement retirez-vous de cette équipe du Sénégal euh, Franchement, parler, actuellement, je suis tellement débordé par l'émotion que je ne trouve pas trop les mots. Mais franchement, on a que fierté euh, Parce que début, commencé, on a nul mais de poule que l'efficacité offensive de Lyon en cas match de poule j'avais euh, euh, marqué qu'un seul but c'était sur penalty mais à partir des huitièmes de finale c'était de 2 à 3 buts. Mhm. alors là je pense que euh, c'est une tactique qui a été abordée par Aliou ou c'est des enseignements des joueurs eux-mêmes dans l'antenne avant ah bah, actuellement franchement parler nag mënumaa wax ndax Aliou Cissé Aliou Cissé man parce que buñ sété seetee ba seet moom mooy coach bi moy moy moy sélectionneur bi tamit euh, donc euh, mën nañu japp ni travail d'équipe la ki nga xamante ne Aliou Cissé euh, seetlu na équipe équipe am gis na ni bam commencé ni commencé wono baxul kon mu dem xolaat bopam té en plus dina dina am ay retour parce que dina déglu li nga xamante ne mooy commentaire li nga xamante population tam dañ ko ko wax ay suggestions yoo xam dañ ko ko jox mu tok waxtane ko li nga xamante moy équipe am parce que travail d'équipe la mom day indi waaye tamit équipe bi ñoom tamit ñoom ñooy joué ji xam nañ li ñu capable lu ñuy mën kon sélectionneur bu demee ba def euh, liggéey euh, travail technique bi li ci des nag mooy euh, joueurs yi ñoom ñoo ko waroon a ci terrain bi te wane nañ ko def nañ ko kii nga xamante ne mooy Sadio Mané wanenaat na encore te en plus ñu seet nañ sax moom mooy homme du match tey franchement par la affaire boo xamante ne neex na ci xol parce que Casa C la te mooy Casa C Casamance ñun parce que boo seetee li nga xamante ne même kii kii Mendy aussi tamit un jeune Casassé c'est xamante ne wan équipe bi tey nii euh, euh, wan yobou équipe bi fo xamante moy mooy ak sama frère bi Bamba Dieng dama ko fàtte. dernière question disney nañu Sénégal va jouer là pour la deuxième fois euh, pour la deuxième fois d'affilée une ligne mm-hmm. première dans la dans l'histoire de l'équipe nationale du Sénégal alors ci loolu nag quel message donc pouvez donc lancer aux Lions du Sénégal même si bien vrai ils sont ils sont aussi l'un de nous. ah non gis nga fu mu ni actuellement li mala wax rek ca bel ba coupe bi dañ koy jël.

Merci beaucoup donc à vous, donc, euh, Xavier, donc à tous ceux qui sont venus aujourd'hui supporter cette équipe nationale du Sénégal qui a euh, battu la formation de Burkina Faso sur la marque de 3 buts à 1. Comme elle a dit, c'est donc, notre confrère de Casa Actu donc, avec ses très belles analyses, et pertinentes. L'équipe nationale du Sénégal a fini à battre la formation des talents du Burkina Faso. On va prendre une dernière, donc, un dernier supporter à l'équipe nationale du Sénégal. Alors c'est invité, équipe gagnante, équipe maillot Sénégal wa mais content rek ah parce que li dañ ko yag dañ ko yag rêvé dem final yalla def ñu jël ko donc j'espère que lu lu neex lay doon ci xol. parce que neex na mais jël ko tamit. wa jël ko mo dàqati. waaw jël final moom baax nañu jubilé mais amna benen jour bu ñuy xaar jour jouru dimanche ñu jéem def lepp lepp lepp jox joxé à fond comme ay de vrai gaynde su ko defee ñu mëna ñu mëna jël ndam li indil ko Sénégal parce que mérito nañ ko parce que xaar bi yag na lool. alors c'est midi li ñuy gis ni moy que Sénégal bu ñu ko commencé on coupe d'Afrique bi dafa méttoon wa wax yu bari na tey léegi ils sont montrés en puissance ci le point tey nak ñu do équipe xam ne moo di Burkina Faso loolu la ban enseignement nga am ci loolu effectivement ni ngi ko waxé non la au début c'était très difficile parce que li daanu doon mel nii kaan yu passe yëpp dañuy def dañuy débuter on débute très fort mais on termine mal lolu chaque année durant toutes ces trois cannes dernière CAN yeb lolu moñ ñu dal mais Rennes, on a on monte en puissance crescendo nous. donc li compétition au moins ça ça ça s'annonce bien quoi Inch'Allah. que et puis Sénégal a un euh, adversaire privilégié en finale. non non on n'aura pas d'adversaire privilégié. que ce soit l'Égypte ou le Cameroun, nous sommes prêts à ramener la coupe ici au Sénégal, Inch'Allah. Et puis on a confiance en nos lions.

waaw mbégte mbégte mbégte rek. waaye kontaan nañ bu baakha baakha baakha baakha baakha baakha baax a kan non man mom euh, Sadio Mané surtout ak euh, Abdou Diallo bu na sa en tout cas samay fantasy je les suis euh, dama len di setlu bu baakha baakha baakha wax dëgg yalla Sénégal dina jouer final bi inchallah dimanche xam ñu ndax Cameroun la wala Égypte suba lañu wara war a amna adversaire plus dëgg ko xam dañu ko war final. man japp na ne ku ma su rek dama lay duma waaw ndax effectif bu ñu am. joueurs yi ñu am am nañ capacité dóor ku nekk si monde bi man sax man loolu laay wax tout le temps équipe bu ñu am amul benn équipe si biir monde bi bu am effectif bu mel ne suñu effectif waay benn pronostic nga am bi bu ah, <laughs> comme li may tooñee sama gars yi rek. comme li gars di wax dernier sens. yàlla fii nañ ñaan yàlla rek. waaw ren moom yàlla mayuñu coupe bi mbégte bi gën a yokk incha allah ndax tamit aussi soxla nañ ko. soxla nañ ko mënuñu ko mënuñu concevoir une grande équipe comme le Sénégal boo xamante ne moom lañ classé premier si euh, pays africain yëpp ba léegi fekk ba léegi mënuñu am coupe mais nag je pense très bien que cette année moom euh, sera la Alors voilà donc, Serge euh, nous vous saluons donc de votre euh, perspective, mais aussi à vous qui nous suivez. Vous êtes nombreux, plus de 400 et quelques personnes à nous suivre sur la page de la radio Génération FM pour nous accompagner ici au rond-point euh, Jean-Paul II, comme vous le voyez derrière nous. Nous avons commencé depuis au rond-point Candé et nous sommes arrivés ici où l'équipe nationale du Sénégal a fini à battre cette formation du Burkina Faso sur la marque de 3 à 1. On va continuer donc de l'autre côté pour voir si Olha ali, Mero, olha o barman. Como é? Barman. Alors voilà, donc, euh, vous, avez, vu derrière moi, c'est au point euh, donc Zampol 2 où l'équipe nationale avec les supporters de Ziguinchor, de la, toute la région de Ziguinchor, toutes les euh, villages, tous les quartiers de Ziguinchor sont sortis, que ce soit à Kandé ou un peu partout à Santiaba, supporters ou non supporters de l'équipe nationale du Sénégal. Aujourd'hui tout le monde est supporter de l'équipe nationale du Sénégal. La radio Génération FM vous a accompagné ici pour vous faire vivre cette très belle ambiance. Vous avez regardé avec nous cette très belle foule de des supporters et sportrices du Sénégal qui sont sortis massivement après la victoire de l'équipe nationale du Sénégal sur la marque de 3 bis à 1 face à l'équipe du Burkina Faso. Nous allons partir du côté de Kandé pour voir aussi quelles sont, quelles sont donc l'attente des supporters et les sportrices de l'équipe nationale du Sénégal.